alhamdulillah alkarim silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sadi disaani nawir janaani safi amaane wasid baraay jërëjëfe sëriñ tubaa est-ce que sëriñ tubaa sëriñ tubaa amul morom jërëjëfe cheikh ahmadou bamba xaadim rasul ñoo ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat sëriñ tubaa cheikhul xadim ci xewul yépp di ziyaar kilifa ak barab bi cheikh moustapha jaxate xaadimul xaddim di ko ñaanal tawféex moom it li sëriñ tubaa ame ci xaadim rasul gi rek yàlla na ko amee ci xaadimul xaddim gi amee ngërëmal Sëriñ Tuubaa ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def euh, ñu nit ñu amee ko ci ak mbokk yi nga xam ne ñooñu mbokk euh, soppee daara Saxum Touba yëpp ak ñi leen di safoo barki Cheikhul Khadim ñoo ngi ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké Bachir yàlla na fi ak lool te wér waaw ni euh, Cheikh Moustapha di wax rek yàlla na suñ borom def kéemaana gudd fan ci moom gu ànd ak kàttan ak ngërëmal Sëriñ Tuubaa barki Cheikhul Khadim ndax yaakaarul islam la yaakaaru islam yëpp la barke Cheikhul Khadim ñoo ngi santaat yàlla bu baax nag di dikk tey ci jàngatu jotaayu murit saadix bi sëñ Moustapha def mu am solo lool nga xam ni kenn umpalewul fan yi coow li am muy wahabis ak salafis yi nga xam ni ñu ngi jóg di bu yàgg ba léegi sax waaw du léegi waaye xaj na léegi dafa gën a takkarnaase nga xam ne bu yàgg ba léegi wax dëgg yàlla ñuy dal ci kaw ku mel ni xaadim rasul Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba yeneen mag yi baax yépp ñu nekk xam ñu nekk ci réew mi waa tasawuf rek nga xam ni eh, lu safaanu lu nekk ñu ngi koy yekk ñu ngi leen koy yekk eh, kon taxaw ci seetu day am solo suñ Moustapha defoon ci benn sorti nag ñu war koo jàngat incha allah nga xam ni rappel bu am solo def na ko ci muy Sénégal euh, maanaam ressource humaine bi ñu am maanaam war naa xam li ko ko jox maanaam qualité nit nit yi mu am war naa xam li ko ko jox waaw ah, ndax fépp foo wër ci àdduna day waxuma ñi gëmul yàlla waaye suñu mbokk jullit yi sax fépp foo wër ci àdduna euh, di nga leen gis ñu jaamu yàlla julli woor kii waaye buñ ca paree pare nañ ci waaye Sénégal da ngay gis ku julli ba noppi yaa nga ca kurus ga waaw dinaa siral xaq min xaq wala nga yaa nga ca dol ba di xasi ci xasida yi nga xam ni fees dell ak njariñ waaw tudd yàlla euh, jéggalu yàlla ñaan yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ni sëriñ Touba xoolal ni mu tënkee ñooñam amul benn seconde boo xam ni nag nit ki war na ko toog loxoy neen perte ko ci temps ci lu dul yaa ngi ci jaamu yàlla waaw kon qualité nit boo nit ñu war senegal war nañoo xam seen mag ñi nga xam ni ñoom la wahabist yi di saaga ni ñu def ba réussir lii loolu rek war nañ ko xool sëriñ Touba liggéey fi loo xam ne nag dafa garantil Sénégal jàmm waaw ndax lépp lu ko suñ mosam borom mosa woon loo xam ne dafa war a ñëw ci ci waa Sénégal muy ay natt wala dara moom Serigne Touba Cheikhul Adim Cheikhul Khadim tegoo na ko ngir lan ngir rek mu wàcc waa Sénégal te loolu sëriñ Abdou Lahad wax nañu ko nee na Sénégal gi képp koo xam ne nan nga fay indi leneen lu jàmm ay woowa ngay ngay ngay ngay bëgg indi ci sa kaw lay dellu waaw loolu moom lu wéral te sëñ Abdoulaat wax ko sëñ am sa mii nga génn mi nga xam ni moom xuddaamul xaddi mii nga xam ni génn na wax kenn gënu koo placé ngir wax kenn gënu koo placé ngir wax ci li muy ci li muy wax ndax nag waxuma maamam la ñuy waxal waaye koo xam ni rek maanaam xaadim rasul la lislaam mu daj ci lu ne mu jaral ko lu ne ba tey mu am li mu am képp kuy jullit rek buñ ko waxee lu lu dul noonu war ngaa taxaw défendre waxantuma laa bi nga xam ni moom maamam la ba noppi mu wëlbati ko doon doomi sëriñ eh, eh, Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad ku ne xam ne taxawaayam ni mu setale woon Touba ni mu jàmmaarloo woon ak ca jamono yooyu ñi nga xam ni safaan lañ daan wax wala nekkuñu woon ci Touba niñ fa war a nekkee nan la def ak ñoom kon tey sëñ Hamza bu taxawee wax jàmmaarloog ñooñu ñëw yoonu murit yëpp ngi ci am te ñëpp adhéré nañ cent cent ci li mu wax waaw te lu mu nekk murit yi nañ ko ànd ak moom ndax doomu sëñ Abdou Lahat la setu Serigne Touba la du seetaan kenn di wax maamoom lu dul noonu xaadim rasul di ko wax lu dul noonu wala ngay nasaxal lislaam wala ngay wax ci lislaam loo xam ne du noonu kon li mu woote li mu wax da cee war a wax ki ko wax war na ko wax wax ji mu wax place ba mu ko waxee waxtu ak lépp macha allah yàlla na ko suñu borom defal jàmm ak tawféex sëñ Moustapha indil ñu lu am solo nga xam ne Serigne Touba waxoon na ci communication ci jamono yi nga xam ne boo ko xoolee réseaux sociaux ni mu yombe ni mu tase léegi waaw digganteem nga xam ni ni mu waxee nii li maanaam xeex nañu suñu su suñu euh, niti diine yi ci complot ak ci ak ci ak ci génne leen seeni réew jaarale ko leen ci communication waa ils ont combattu notre religion l'islam par le complot la déportation des guides et la communication xoolal télé yeeg rajo yi waaye internet bi moom moo ñëw gën a fësal loolu nga xam ne tey nit soxlawul rajo wala télé pour siiwal li mu bëgg a siiwal waaw mën ngaa toog sa rek wax li ngay wax tas ko àdduna bi dégg ko léegi loolu nag ñi ko créé xam nañ ni bomb lañ sànni léegi nag loolu ñu sànni dina am ñoo xam ni fi ni toll nii quatre-vingt-quinze pour cent si ñi koy ci koy ci ci ci ñi koy utiliser ñi koy ñi koy ñi koy jariñoo du ñu xam nan lañ ko war a jariñoo nga xool ba ci conférence internationale li ñuy yi ñuy def ngir xeex l'islam di ci woote ay ay ay droit ak ay yu kenn xamul ba ci slogan yi ba ci couleur yi xoolal ba ci colin yi léegi psychologiquement sax sa mode de vie dañuy wax ni maanaam nit ki dafa war a libre liberté d'expression nit ki dafa war a libre ci xalaat li mu war a xalaat libre ci wax ko na ko bëggee waaye libre ci ne mu wala solo ba ci ni nga war a solo da dañ dañ naan nit ki dafa war a libre wala nangam nangam mais booy xool au fond liberté amul parce que tey ñiy woote liberté sax am na loo xam ni duñu ko duñu ko nangu am na loo xam ne duñu ko nangu ku leen fekkoon seen kër saaga leen daggal leen ne man euh, tey dama laa xool neexu moom ba bëgg laa saaga loolu duñ ko nangu neen dal dañuy dal sa kaw ñu bëgg a def ci bopp nit ñi nag nekk lislaam dafa uute lool ak jamono ni muy doxe nga xam ne l'islam dafa dafa maanaam dafa xañ ñi seen liberté lislaam maanaam dafa teengal lislaam maanaam euh, day reyaate lislaam maanaam mayut nit ñi ñuy dund te fekk loolu yëpp dara du ci dëgg ndax li ñuy woo nit ñi rek mooy bakkan kese parce bakkan képp la ñuy woo nit ñi mooy lu la sa bakkan laaj rek nga def ko te lislaam moo gën a moo gën a xam ni nit ki boo ko nee maanaam lu la neex def lu la neex nga def wala lu neex nga wax rek day mujj anarchie am ci àdduna noonoo am xeex am bu ko defee nit ñi di dee te lislaam day prévenir loolu nag dalay wax ni eh kat fii nangam fii fii nga fi war a yem nangam ji fii nga fi war a yem ngir sedd sa àq ak yelleef ki nga bokkal àdduna di fi dund waxuma ki nga bokkal diine wala ki nga bokkal ndey wala ki nga bokkal baay wala ki nga dëkkal waaye ki nga bokkal adduna bi di fi di di fi dund lool bu ñu demee ba salfaañe ko nag jafe-jafe yi ñu am yëpp moo ñu ko indil waaw kon nga xam ne Serigne Touba lépp teew na fi kanamam mu xam ko kon lépp a na ko nag kon nga xam ni euh, exemple bi biñ ci mën a joxe rek mooy ba mm, euh, maam Cheikh Anta indee rajo ba. teg ko sëriñ bi ne ko lii la mu ne ko lii de day wax kii la mu ne ko ubbil ma gis bi mu maam Cheikh Anta tijjee mu ne a aouzu billahi mina shaytaan rajim sëriñ bi ne ko tëjël tëjal ubal boppam lay muslu waaw tëjal boppam lay muslu te boobu rajo la xoola tey rajo liñ ko fi jaare ba internet beeg lépp waaw sëriñ bi ne ko tëjal boppam lay muslu xoolal jafe-jafe yi mu indi communication fi mu toll nii ni ci nit ñi hasardé woo kon nga xam ne sëriñ bi xamoon na lépp Euh, li nga xam ni itam moom la sëñ Moustapha wax ci ñii nga xam ni mooy docteur ahmaduloo ak euh, euh, sëñ Khalil Lo nga xam ni booy xool li mu wax ci ñoom moom ku leen xam la ndax ci moom laa déggee rek tur boo xam ni kenn wooweegu ko mooy Modou Lo Ndaxar waaw Modou Lo Ndaxar nga xam ne kon ku la xam rek moo lay woowel ndaxaar gi lu ko indi mooy ndaxaar mbay gam nekkoon jamono ñoo ñoom ndax ñoo bokk génération jamono yi nga xam ni ñoom jàng nañ ba noppi wër réew mi di jàngale moom mu nekkoon ndaxaar mbay sëñ Moustapha Jaxate mii nekkoon euh, kër baaba nga xam ne ñuy jàngale sëñ Moustapha Jaxate moom wax na ni moo leen njëkk a génn kon moo leen jiitu fañ nekkoon di Arabie Saoudite kon ginnaaw bi la ñoom ñëpp génn kon boo ko seetee ñoom ñuy ñaareelu génération bi génn jàng ci yoonu murit waaw nga xam ne ay leeral yu am solo la ci sëñ sëñ sëñ Moustapha indi xalil mi nga xam ni parcelle la nekkoon di jàngale ba mu bëggee ñëw ngaabu moom sëñ Moustapha mii la àndal tey ci sëñ Saliou ngir di laaj si ndigal waaw kon tey bu demee ba am taxawaay bii mel na ni intérêt moo ci lalu wala mu bew wala mu am yeneen yoo xam ni maanaam leeralu ko nit ñi dem na bu dugg ci loo xam ni sana sana sañatoo bañ la baat bi nga xam ne nag moom la jëfandikoo sëñ Moustapha wax ko mooy eh, ni firaaw na noote woon askanam noonu la sëriñ si noote seen askan ñoom nga xam ni muy lu ñaaw ñaaw nga xam ni dafa mel ni daal dana waxuma la exploitation waaye doon seen yàlla doon seen yàlla waaw doon seen yàlla daal Euh, noonu la sëriñ si def te loolu ku ku ne xam ne ne loolu amul ndax ñun kenn forcé wuñu ñu wuy si sëriñ Tuubaa sëriñ bi dafa sëriñ bi dafa indi lu leer woo nit ñi ci yoonu yàlla forcé wul kenn ni ko suñ borom defee bu ko sañoon ñëpp bu ko neexoon tey ñëpp gëm ko waaye dafa woote bàyyi nit ñi nag ci seen sago ñu xool ba sëriñ Tuubaa doy nu ñu xam ni sëriñ Touba lu wóor ci la nekk te Serigne Touba mooy xel mu dal mooy lislaam gu wér péng mooy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa mooy topp sunna si yonente sallallahu alayhi ndax moo ko jaral ba mu am jafe yu bari Serigne Touba doy ñu ñu wuy si bu bu wootee ñu ñëw yëkkati suñu àddi joxe bu wootee tool yi ñuy dem lu mu woote ñu nekk ci ci suñu sago nag waaw tamul ñeex ñeex ñu lool kon sëriñ bi li mu wootee amul kenn koo xam ni dañ laa forcer ngir nga nekk ci déedéet amul amul kon bu ne na Firawna defoon noonu la sëriñ si def loolu lu lu ñàkk a tegginu la te loo xam ne tegewul ci dëgg la kon boo xoolee li sëñ Moustapha indi euh, nga xam ni ñoom ñi jàngi woon quatre vingt dix pour cent ñëpp dañoo mooy ci sëriñ kon euh, ñi nga xam ne nag mooy de pour cent bi des wala dara mooy ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo jiite ay xale di leen wax ni sëriñ bi nekkul ci sunna di saaga di wax lu leen neex waaw léegi ubbee gi ci sëñ Moustapha def mooy na nit ñi xalaat na nit ñi xalaat delloo si seen xel kon bu fekkee ñaari nit rek ñoo ci mel noonu na nit ñi xalaat ndax li ñuy wax sondage wala démocratie wala nàngam lu ci ëpp sax. bu bu dee cinquante pour cent wala cinquante et un pour cent ki am cinquante et un pour cent mooy jàll waaw léegi kon ndax moom quatre vingt dix pour cent wala quatre vingt dix huit pour cent nga xam ne ñoom ñoo ci des te dellu mooy ci Serigne Touba ci njàngalem Serigne Touba xam ne Serigne Touba képp lim jàngale lu wér peng la te li muy woote lépp dafa wér peng nañ ndax ñooñu moom dañoo seen xel daa matu wala du ñu ñu tekki dar wala du ñoo xam ni eh, seen xel mat na. te li ci gën a yéeme mooy ñii di ngeen ñëpp Touba la ñu jàngi seen diine maanaam jógewuñu fa jàngi maanaam Touba lañu xame lépp li ñu xam bañ fa daataan jóge mën nañoo woy woy yoo xam ne bañ ko woyee ci la leen arab yi accepté seen université xam ni ñii kat ku ñu jàng lañ fan lañ jànge waaye ñi leen jàngal moom ci ay caaxaan lañ nekkoon kon nu ñu def ba mën lool seen maam yi toqantal lool ci def leen euh, tarbiye leen ci loolu euh, ñoom ñoo nekk ñoom ñàkkoon nekk ci sunna kon te olof dafay wax ne ku bañ sa askan rek dafa fekk nga gën caa ñaaw waaw sa askan moom fu ñu ko tuddee nga nga kii dafa fekk yow yaa ci gën a ñaaw waaw te nit ñu safaanee foo dem rek fekk leen fa foo dem fekk leen fa waaw loolu moom yàlla mi nga xam ni moo bind jaamam yi wërsëgal leen kàttanal leen xelal leen sax ñëpp gëmuñu ko ñi am nañu fett taxaw ne dañoo weddi yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu waaw ki nga xam ni nag moo nekk ci réseaux sociaux yi te sëñ Moussa wax ko nga xam ni dane xaliloo la déglu ba tax mu génn ci yoonu murit ndax nekkoon na ci yoonu murit sax laay wax man ndax ni ko sëñ Moustapha laaje mu ne suñ waa kër ay ibaado lañ woon waaye man maa leen gënoon a bañ sëriñ Tubaa nee na képp koo xam ni gémmiñam mi ngi wax laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu leen ko noonoo sëriñ Tubaa digalul kenn mu noonoo ki nga dëkkal sax bokku leen diine Serigne Touba digalu la nga noonu ko waxantuma la ak ñoo bokkal ndey ak baay kon yow nekkoo woon ci yoonu Serigne Touba da ngaa nekkoon ci da tuddoo mbir kay te xamoo sax mbir ma la muy tekki ne ci mër yërandoo kon yow fel la day yomb waaw ah, waaye nag moom nga déglu ba génn ba ne danga cee génnee toppal li nga topp te bàyyi ñu fi ñu nekk ñun bu soobee yàlla dara duñ fi jëlee li ab Abdoulaye waxoon rek ñun ak ëkk lañuy ñuy doon du ñu doon aw xam boo xam ne lu ñu ñu ñu dugg ci ak kàmb kon taxawaay boobu lañ taxaw ñun kon loolu lañu sëriñtuwaa Tuubaa digal kenn kuy wax laa ilaha illallah rek kenn du ko noonu waaw kon yow demal nga jàngaat nga xoolaat bu baax sa bopp li am solo itam ñu war koo xam mooy maanaam nekk ci yoonu murit di jëf-jëf yi li sëriñ bëggul lool yow la engage sëriñtuwaa dafa bind ay téere fiq ni ñu topp yàlla ni ñu gëme yàlla ni ñuy jullee ni ñuy woore ni ñuy ajee loolu yëpp Sëriñ Tuubaa bind ko ba noppi bind ay xasidaam nag yi yéege nit nit ki nag bu baree yoonu boppam di def lu Sëriñ Tuubaa déglewul loola moom rek la engage ndax dafa tuddoo Sëriñ Tuubaa te xamul li sëriñ bi woote sax kon kooko buñ ko askanale ci ci ci ne murid di nàngam loolu moom ak naafeq lay nuru léegi livre docteur Ahmed Lo bi li tax mu mu mu niñ ko mën a woowee li tax mu mu dangereux mooy ñu mel nii ñi nga xam ne xamuñu dara ñi nga xam ni maanaam seen bopp feesul ñi nga xam ni dañoo ne ci yoonu murit lañ dugg wala feneen lañu nekk te xamuñu gëstuwuñu kooko la mu woote lu mel nii buñ ko gisee mën nañoo mën nañoo mën na leen a fàbbi mën na leen fàbbi eh, leneen li am solo tam mooy dañ ne dañoo woote jàmm ñoom waaye jàmm yi ni ko sëriñ Moustapha waxee rek Seydina Omar biñ ko jiitalee mu doon kilifa jullit yi ba mu ne da ma dimbali bu ma juumee ngeen ne ma juum nga bu ma defee lu ma war a def ngeen ne ma waroo def nangam moom jubbanti na ay nit ba taay tegaat leen ci yoon assalaamu ala man ittabahal huda jàmm mi ngi ci mi ngi ci yoon yoon mi nga xam ni mooy yoonu njub yoonu siraatal mustaqim waaye doona jàmm ba noppi tegawoo ci yoon wa koy wa koy joxe jàmm laay woote waaye ne ko fa teg yoon way jëm ci jàmm yow yow awoo ca waaye bu la neexee nga ne jàmm laay woote waaw te jàmm ja balaa moo neex nag ku ne xam sa bopp maanaam boo gisee conflit yi am ci àdduna yëpp jafe-jafe yi amoon ci àdduna nit ñi balaa ku nekk doon xam sa bopp ku ne da xam fi fi ki mën ku ne da xam ki muy ci xam-xam wala ci neneen mën a nekk ci xam-xam mën na nekk ci xel mën na nekk ci doole waaw waaye nag li gënoon a neex mooy ñoom ñu jaare ko ci xam wala ci xel waaye ci ñàkk kersa gi nga ko bëgg a jaare di saaga lépp loo gis nag day am yamukaay waaw dugg biir nit kër gi euh, fekk nit biir këram mu toog lu ne nga wax ko ci lu mu toog mel ni déggu la nga ñëw ba ci moom ne ko yow mii laay waxal mu feneti nga jàpp njabootam di wong ko dóor fekk borom kër gi toog nga koy wong di ko dóor te njabootam nekk nii nañ xoolaat loolu lan la mën a jur nañ xoolaat loolu lan la mën mën a jur waaw sëñ Abdou Lahat la mu waxoon itam te sëñ Moussa indi ko muy ku nekk war ngaa am yetu baadoo la yatu baadoola dafa baax ndax nit nit ñi dafa am ñu baadoo la baadoo la weesuwul topp nit ki di ko sës di ko sës di ko sës waxu la dara di indi jàmm ngay continuer di wax say wax te olof dafa yox ne baadoola du jub gàcce mukk te eggu ci dafa mel ni nag moo doon nar a dal ñoom waaw lu nekk rek nga ne bidan la bu ñu nee màggal nga ne bidan la waa sëñ bi màggal woote sant yàlla suñ borom subhanahu wa taala te yàlla wax ci alquranul karim ne ñi may sama jaam ñi may sant ñu néew lañ kon yàlla bëgg na ku ko sant waay kon yàlla bëgg na ku feeñal ni yàlla moo ma amal maa ngi koy sant ak cant lan lay jur ndolleen bu ñu nee dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ni moo tax yow yàlla sàkk la ki nga xam ni moo indi islaam ba nga topp ci bis bi mu ganee àdduna ñu ne kat nañ ci jàng alxuraan karim nañ ci wax kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la daan dundee ak njabootam nan la daan commercer nan la daan jàngalee nan la daan toppee yàlla nga ne loolu bidaa la ndax yonent bi def ko waaw te Serigne Touba wax ñu ko ne tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati maanaam ku képp koo xam ni màggal nga guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci sunna dalay womat jëmale àjjana nga taxaw fële yow yow ni nga ko olof di waxee tojoo fenn defoo lu kenn xam lislaam jalalu la dara yaa ngi ci climatiseur yi yaa ngi sa ruq bu neex te topp sa bakkan di dund nu mu la neexee <coughs> kenn mësu gis nga dem taxaw ci réew yi nga xam dañoo weddi yàlla risqué wax ni yàlla bëggut lii ngeen def lii la woote def fa daawa sa mbokk jullit yi daal ngay nekk naan leen di shirk ci ngeen nekk te Serigne Touba ni mu xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ tubaa ni mu ragale yàlla sëriñ tubaa ni mu gëme yàlla subhaanahu wa taala sëriñ tubaa ni mu taxawoo lislaam sëriñ tubaa ni mu taxawoo lislaam bañ na ko dana may na ma dalub lislaam sëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu waaw kon ku mel ni sëriñ tubaa woote lu mel nii tegoo natt yu mu tegoo est-ce que dina woote loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bugg ko te mu ne mooy xaadim rasul liggéey yonent bi yóbboo ko lu ne xam nga xel lu dafa baax xel lu dafa baax kon Sëriñ tubaa Seexul euh, Xaddim na nga xam ne noonu la aaree ay mbiram noonu la aaree Tuubaa ba nga xam ni ñii di dingate di wax ñëpp dara duñ ko mën ci Touba waaw loolu moom na leen na leen leer moom te itam li ma jaaxal mooy ñoom demuñu ci ñi weddi yàlla waaye say mbokk jullit ci boppam ngay ñëw di leen di leen di leen di leen wax ni da ngeen a yàlla di def ay lavage de cerveau ñoo xam ni maanaam ay étudiants yoo xam ne xamaguñu dara nga ñëw dugg seen bopp bi waxal leen ba ci ni exemple concret bi nga xam ne sañ Moussa indi ko mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk ci ay société wala ñu doon ay ay ay cadre ñu ñoo defal leen lavage ay ñuy muuru waaye dañuy muuru sol pantalon yu seere sol yoo xam ne ni ñu koy waxee góor gu la xool xam ne lii yow sa yaram bi yëpp a ngi feeñ xam nga incohérence ci seeni mbir dafay am dafay am ba ci euh, ñoom am am ñi ñuy am nga xam ne sadaxaat yi nga xam ne ñu ngi koy joxe Arabie Saoudite dil yi ñuy def diggante naar yi yooyu yëpp ñu xam ko kon seen mbir setul dafay am loo xam dañ mel ni ñoom dañoo dugg ci mbir ba na sañe sañetu bañ la waaw ndax boo leen xoolee daal da xam ni ñii seen dëgg dëgg li ñuy woote nii gëmuñu ko waaye sañetu bañ la waaw wax dëgg yàlla ak ndofe weesuwul di diingat koo xam ni moo la ëpp doole fop koo xam ne njabootam tey bu ñu jógoon gen maanaam un ci njabootam bu ñu jógoon yow la nga yor rek mën nañ ko faagaagal ci benn minute nga dëkk ci di tooñ kooku ñàkk muus la ak ndofe la ak ndofe dëgg la kon ginnaaw loolu yëpp dangay xam ni am na lu ci nekk te yoonu murit maanaam yaakaaru lislaam la xolal daara ñaata daara la yoonu murit taxawal ñaata daara alquraanu karim ñuy jàngal alquraan ñaata juma ñaata université fu ñuy fu ñuy euh, jàngi xam-xam ñaata doomu aadama la yoonu murid di dimbale bis bu nekk ñoo leen di jox dépense di leen leel yoonu murid contribution économique ci ci ci ci ci ci ci ci Sénégal kon loolu war nañ ko xool bu baax ay question yu ñu war a répondre la yu ñu war a xool bu baax a baax a baax léegi lan moo tax ñoom demuñu ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la réew mi am waa politique yi di woote ay loi yoo xam ni homosexualité nañu daganal avortement nañu daganal na nangam loo xam ni l'islam da koy bañ ñoom ñu taxaw def ci ay marche génn wane ci ay position lu leer leen ci dégg waaye sa mbokku jullit daal ngay dem fekk ku gëm yàlla ku toq ci koo xam ne tey bu alxuraanul karim lakkoon mu bindaat ko te ko xool addis yonent noonu nga taxaw di ko taxé de de de de shirk luy Arabie Saoudite gee tey la xew lu tax duñ ci wax ñoom seen maître ya fa nekk tey di di di di innové ay discothèque seen jigéen ñi di sol lu bon aj gi ñu aj ko ba pare nekk fee di divertiru lool fu ñu ko teg war nañ ko xool dooley murit nag yëpp tey ànd nañu ko sëñ am sa mi nga xam ni wax na tey li mu wax li mu wax loolooy dëgg te kenn dutul nangu Serigne Touba ñu ñu fiy nekk di saagaaka gi déedéet kenn dutul ko nangu te sëñ am sa ci ndigal lay dox te sëñ sa ndigalu sëñ Muntaxa lay dox te mun Muntaxa waxoon na ni kenn du fi rey kenn kenn du fi dóor kenn fitna ju dul ray ak dóor rek képp koo xam ne yaa ngi waxati sëñ ci wàllu noonu dañ leen ko def te sëñ am sa ci loolu la nekk sëñ am sa ci lool la nekk kon damaa xamul ñii nga xam ni mooy ñi nga xam ne ñoom lay mooy docteur Ahmed Lo ak Khalil Lo nga xam ne sëñ Moustapha ni mu ko leeral ci deuxième génération bi fi génnoon la seen xam-xam yépp ñu xamee ko tuubaa jàng ko fa jàng téere yi nga xam ni moom la Serigne Touba bind de ci tawhid ak imaan ak islaam yépp ci tawhid gëm yàlla ak ni ngay jaamu yàlla ak yépp Serigne Touba bind ko ñu jàng ba docteur Ahmed Lo woy yu rafet yu mu defoon la naar yi gis accepté ko seen université kon Touba balluwaayu xam-xam la Touba képp koo xam ni xam-xam ñor na la bu wér ma nga fay tege te boo fa ñëwee am ko fa kon ndax yow mii nga xam ne yaay di nga tey dëgg-dëgg sa biir xol est-ce que cohérence intellectuelle inte euh, honnêteté intellectuelle mu ngi ci yow xoolaatal sa bopp bu baax a baax te université bi sëñ Muntaxa di defar bu pare kenn dootul wër maanaam kenn dootul génn fenn sax di jàngi far benn wala ngay xooli leneen kon quatre vingt pour cent ñi nga xam ne sëñ sawaa Jaxate mii bokk ci yàlla jubal na leen ndax dañoo dem ba xam ni Sëriñ Tuubaa képp moo fi nekk ndax lañu wër la ñu demoon xooli ko ca naar ya gisuñu fi loo xam ni Sëriñ Tuubaa bind ko wala waxu ko baraw leen ci sax far benn dañoo moyaat si Sëriñ Tuubaa di liggéey Sëriñ kon 2 pour cent bi nga xam ni ñoom euh, euh, kon 2 pour cent bi dañoo dañoo ndax ñoom dañoo gën a muus wala dañoo gën a yeew wala dañoo gën a bëgg lu baax que ñoom sëñ Moustapha Jaxate ni wala dañoo gën a ragal yàlla ku ragal yàlla koy doo sos doo sosal ay nit te seeni wax chaque jour sos la ba ci seen woote bu mujj bii docteur Ahmed Lo mu wax ne dafa am ñu ne euh, tuubaa kenn bu kenn du fa jàngal alxuraanul karim kenn du fa wax ni yàlla nee na loolu kenn waxu ko bu dee sëñ Fall Fall Mbawar waxul lool loolu na dem xool ñaata daara ñoo nekk euh, ak ñaata jumaa ñoo nekk Touba ak Touba ni ñuy doxale na Sénégal répondre question yi rek léegi nag responsabilité état moom président de la république Macky Sall ku ko wax lu ko neexul di ko saaga Assane Diouf mi ko def dafa fexe ay def fexeem ba jële ko États-Unis indi ko Sénégal tëj ko bundu ko lu nekk mu teg ko Ousmane Tounkara jéem nañ ko waaye sottiwul lan moo tax ñoom taxawaay boobu mënuñu ko am ci guide religieux mun Mountakha mi muy wax ni sëriñam la te di seetaan maamam ñu koy wax lu lu metti bis bu set ak ñeneen te yeneen tarixa yi lan moo tax mënuñoo taxawal communication dëgg la ministre de l'intérieur def na waaye loolu doyul loi lañu war a teg appliquer ko comme dëkk yoon lañ nekk boo jógee boo tey ku jógoon nara a dóori ñooñ boo leen dóoree ñu porté la plainte wax nangam ak nangam ci dëkk yooyu gis nañ seen ndaje mi euh, gendarme yi fi jóor lan moo tax mënuñoo am même taxawaay bi wala lu ko ëpp ci suñ kilifa diine bu leen ñoree ñoom kon lu mat a seetaan la ah kon foofu la taxaw di santaan yàlla bu baax a baax. ci solo si nga xam ni sëñ Moustapha Jaxate Xaadimul Xadim indil nañu ko ñu jafan ci jàngat bi di ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu te tàppaat xol yi dafa ñu jàmm ci lislaam bi ñoo ngi wax jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba Serigne Touba amul morom Serigne Touba daal ci lañ ñooy ca fas yéene wuñ koo booleeg lenn di santaat ñëpp di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam alhamdulillahi alkarim silmilan ala siradi bi furudin wa سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني وهذا